tey nag nag dellu na ci bërëbam jaaxle bii saa yu ñëwee fii nag am na lu muy waajal ii fu mu nii moom toogaay jeex na lenn rek moo fi sës xanaa ma dem ci toolu sàmba waaye lu ma ci jaaxal Samba dafa soxor bi yoon de supp la ma naroon def bi yoon moom xam naa dafa may kaldu baa mu dëxiñ ma waxuma dara sax waaye ca mbaxal puj paj balaa nar a mujjee waaye yéen kii du sama doomu ndey waa bukki sama na moon naa maa la raw <laughs> waaye yaay fàttali ko keroog ba ma lay génnee ci bën bënu àll ba xam nga ni fa nga naroon naxe gis nga nag man doongu xam lu tax ngay def lii ngay def li ngay dem di waraate di lekk sunuy doom sa bëgg yàpp doongu la ko yóbbee loolu nag moo ma fi indi tey waaye yaa ngi sàmb moomu te mu yaroon na moo yor tool bu rëy. doomu ndey ak tool nga wax baar dina ji ay ginaar ak i nag ak ay xar. <laughs> ci ragal ay xar ak i nag ak i béy moom. nañ ci yor ba mu fees dell <laughs> waaye tool bi nag ak ñebbe la ci ji gis nga sàmb moomu nag gis nga supp bi ma waxoon daf may supp daf ko rëccu moo tax nag léegi daf ma ne bés bu ne naa ñëw ci tool bi lekk lu ma neex waaye lu ma ci gën a neex dafa am benn bés boo xamante ni yàpp la may indil waaye bés boobu buy ñëw nag bi fu mu gën a rëyee moom lay rey tànk bi fu mu gën a duufee moom lay indi oh. sama gémmiñ gaa ngi booy nga ne ma doomu ndey bu ko defee nag daf may muur weñ sax bëggul mu laal ma moo tax nag ak bëgg bi ma la bëgg te man sax xam naa ne yow yàpp nga bëgg moo tax nag bu ñu demee taxawal ca bunt ba bés boo déggee ma naan yàpp yàpp rek dawal nga ñëw bi bés boobu jàllee nag ci lëlëg tàmbalee saa yu yeewoo mu dem ca tool ba su eggee nag day ne xale yi seen papa mooma nee naa dugg ñoom it seen papa dafa leen diggaloon ne kenn warul dugg ci tool bi du dul mu nekk ci ndigalam saa yu ñëwee nag day lekk suba ba ngoon mu lekk ba suur mu daldi dellu lëg ko def di ko def di ko def di ko def ba yàlla def ay fan jàll tey nag xale yi nu ñuy waxtaaneek seen papa ci lañ ko laajee papa kiy ñëw bés bu ne ci tool bi salan la seen papa nag ci la leen laajee kan mooy ñëw ci tool bi ñu daldi koy ne ab benn malala bu am nopp yu gudd papa ji nag ci la xamee kan lay war doon ci la leen newee kooku saa yu ñëwee ci tool bi bu leen newee day dugg ko maa ko jox ndigal bàyyi leen ko mu dugg bi ëllëg jotee nag lëg ñëw na ci tool bi mu fekk xale yi taxaw mu laaj leen lim leen doon laaj ñu tamit daal di koy ne mën na dugg mu lekk bi mu demee nag ba tàmbalee lekk ci la jékki-jékkee mbaal bi daldi di tegu ci kawam ci la commencé yàpp yàpp man bëgguma yàpp ñebbe laa bëgg yàpp yàpp man bëgguma yàpp ñebbe laa bëgg bi bukki déggee li lëkk wax nag ci la dawee lu mu mën mu daal gaawantu jël mbaal bi teg ko ci kawam di xaar samba egsi ak yàkkamti ci noonu nag la sàmba daal di eggee ak yatam bi nga xam ne daf ko teg ca xal ba ba mu xonk ci la ko tàmbalee di ko dóor mu koy dóor di ko dóor di ko dóor di ko dóor bukki yuuxu yuuxu yuuxu ba sonn ndax kat mu ngi yaakaar ne ka yàpp bi dina ko fa fekk bu noonu la nekkee ba muy daanu di xam. waaye pooj ba waaye pooj ba